daal di tegee loxo douane sénégalaise moo daal di def li ni mel tamit kon eh, foofee ca douane sénégalaise ci boppam ba tey jàpp nañu eh, fanweer ak ñett foofee ca gànjaay mu nekk nag lépp ni ki démb boo ko daal di boole nag mu nekk juróom benn fukk ak ñett loo xamante ne nag jàpp nañu ko ni ki démb douane sénégalaise daal di def li ni ba tey ci wàllum njàng bi ak njàngale bi ki nga xamante ne moom mooy yéenekaay bi di quotidien daal dinay jox kaddu ki nga xam ne moom mooy Abdourahmane Diouf di eh, njiitalu dara bu kay ci biir réew bu Sénégal di maanaam enseignement supérieur ne daal ñu ngi daal di dem ci jubbanti daara yu kaw yi nekk ci biir réew bu Sénégal ba tey eh, yéenekaay bii di l'Observateur ñu ñëw ci boobu lépp yéenekaay mu daal di ñëw wax ci li nga xamante moom moo jëm eh, ci courant bi ci bu Sénégal ak eh, boo xamante ne cher na ko naka noonu tamit la nga moom moo jëm ci wàllum gaz ak lu jëm ci wàllum la ñu duppee nag pétrole mu nekk nag taxawaay boo xamante ne ñoom jàpp nañu ne état bu Sénégal war nañ caa daal di taxawaay tamit nee nañ daal juróom benn téeméer ci li nga xamante ne moom mooy maanaam milliard ci suñu ab COP koppar lañ cay daal di dugal ci at bu nekk état euh, bu Sénégal taxaw tembe daal ngir daal di jàppale ñi nga xamante ñoom ñooy euh, ménage yi nekk ci biir réew bu Sénégal yéen kaay bi di l'observateur ba tey ci li ne moom mooy aj bi di pèlerinage 2024 mu nekk nag euh, situation boo xamante ne bu njëkk bi Air Sénégal les détails du grand rata ratage loolu dañ di wax ni ki tey nee nañ daal xam ngeen am na yenn ci ay pèlerin maanaam ay aju ujaaj daal yoo xamante ñu nga ca l'aéroport ba tey yi euh, ba ñu waroon départ euh, yàgg na te ba tey dalaguñu seen départ muy situation bu métti ni ki euh, jawrin bi yor wàllum dem ak dikk bi ci suuf si ak jaww gi di kon El Hadj Malick Ndiaye daal dinay tem foofee ngir daal di leen di feddali seen kóllëre xam na leen ne kon lépp loo xamante ne ak yoonal ci biir réew bu Sénégal conseil supérieur de magistrature UMS bani la rupture ndax ñoom ci seen bopp ndax daañu mën a def seen kéem kattan ba mooy la ñu daal di mbëbët ñu bëri daal di koy waxtaanee ci biir réew bu Sénégal ndax dina am am déet ngir génnee njiitu réew bu Sénégal maanaam Bassirou Diomaye Faye mu jiite boobu lépp kuréel loolu yëpp nag daañu ko mooy ñeel dialogue national wala sax li nga xam moom la justice bi nga ne door nañ ko ñaar fukki fan ak juróom ñent ci weeru mai bi daañu leen toppal boobu lépp xibaar ba tey ci wàllum xibaar ñu ànd ak yéenekaay bi di l'évidence wax ci mbëkk mi Barça wala Barsax mu mel ni kon ba tey jile loolee jeexagul ci biir réew bu Sénégal ndax bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi nee na am na benn daal gaal boo xamante ni jàpp nañu ko ci ñoom ñaari téeméer ak euh, fukk ak juróom ñeent ñoo kon ca gaal googee dem wutali kon euh, foofee kon ca tugal waaye nag jàppale ne ca ñoom ñaar fukk ya ay ndaw lañu maanaam ay mineur loolee la ñu yéenikaay boobee daal di xamle grand panel ñëw tamit ci li nga xam ne moom moo jëm euh, ca la ñu duppee maanaam lii di wàllum yoon ak ki nga xam ne moom mooy imam Cheikh Tidiane Ndaw ak ki nga xam ne moom mooy kon ki li Ba Jaxate ñu jàppale ne kon ni ki démb xam ngeen ne daan nañu leen ku nekk ci ñoom ñetti weeru kaso la daal di war a tëdd bi waaye tamit ndàmpaay boo xamante ni war nañ ko daal di jox li nga xam ne moom mooy yoon naka noonu kon jàppale ne gannaaw bi ñu defee boobu lépp euh, maanaam euh, ba ñu joxe ba pare ki nga xamante ne moom mooy kon maître Amadou Sall moom dafay di xam ne ne jàpp na ne kon gisul lenn loo xamante ne war nañ ko mën a daane seen ay euh, client di kon ñaar ñooñee kon moom mooy kon Bah Diakhaté ak ki nga xamante ne moom mooy kañu duppee nag maanaam imam Cheikh Tidiane Ndao beneen yéeni kaay ba tey ci li nga xamante moom mooy jëm ci li ni dañ cey daal di dem ci wàllum Euh, tàggat yaram wala laataa ñu dem tàggat yaram ñu wax ci mandat mandat daal ñëw wax ci li nga xam mooy kon taxawaay bi nga xamante ne am nañu ko ci wàllum fisc ñoom seen xam ngeen ni boo leen fàttaliko laataa ñuy dem ci élection présidentielle bi waxoon nañu ne Macky Sall daje woon nañu ak njiit yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite média yi ci biir réew bu ba sax baaloon na leen li nga xamante ne moom la ñu doppee maanaam euh, fiscalité bi nga xamante ne yoraloon nañ ko gouvernement bu Sénégal ci ay coow nag ñu daal di xamle fan yi di nag nekkul lool loo xamante ne amoon na Madiambal Diagne ak li nga xamante moom mooy kon këram boobee di groupe avenir communication ne nañ daal war na joxe lu toll nii ñeent fukk ak benn million ci li nga xam moom moo jëm ci wàllum fiscalité yéenekaay bii di mandat daal di ca ñëw ni ki tey jëlee Madiambal la nouvelle cible des autorités noonu lee lañ ko daal di waxtee ni ki tey jëlee di ñu daal di daal di ca ndax prox dal dem ci wàllum politique ak parti socialiste sénégalais jamono ji ñoom ci seen bopp naka lañ mën la ñu war a def ngir gën a xoolaat seen taxawaay qui peut incarner l renouveau kan moo war a mën a taxaw dëgg daal di wone yoon bi nga xamante moom la parti bi war a jël loolee la ko yéenikaay bi daal di sampe ab laaj ki tey jëlee le mandat daal di fay teg ci xëtu njëkk yéenikaayam ki nga xam ne moom mooy Aminata Mbengue ñu dem ci wàllum tàggat yaram laataa ñu dem ci leneen yéenikaay Cheikh ak li nga xamante moom mooy kon xibaar yi ci kàllaamay nasaraan Sadio Mané du bokk ci jongante yi nga xamante Sénégal war na ko am ñeel éliminatoire coupe yéenekaay bi di record daal di koy xamle ni kii tey jile Sangaré moom jamono ji ba tey dara wóoragul ñu ngi koy xaarandi kii di Lamine Camara tey jii euh, lay daal di yegg si ci li nga xamante moom mooy kon tanière bi euh, moom mu ngi woon foofee ca France ngir jongante li nga xamante moom mooy barrage bi ak clubam Metz malheureusement clubam sax du dem ci Ligue 1 dafay daal di wàcc ci Ligue bi ñu xaarandi kon Coupe du Sénégal quart de finale yi tey lañ koy daal di jongante euh, Casa Casa Sport ak Jaraaf ñoom ñooy daal di laale. mu nekk ab final laataa ñu yegg ca final ba noonu la ko yéenekaay bi waxee beneen xibaar bi nga xamante ne yéenekaay yu bëri daal dinañ cee wax mu ngi nii Kylian Mbappé finalement sol na maillot Real Madrid mbëbët la woon jamono ji dëggantaan lay daal di doon moom dafay daal di sol maillot bu Real Madrid jox nañ ko numéro 9 bi moom mooy jël place su Karim Benzema. ah. <laughs> waa France ñëw nañu ñëw nañu wuutu waa France. waaw France wuutu waa France ah loolu mooy xëy na géej gi am na ndox rek ak euh, Real moom loolu mooy invincibilité pour année prochaine. loolu moom dañ gañe gañe yu bëri bëri bëri la jëf Alamine Senghor dañuy euh, tàmbali waxtaan yi.